mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci Coupe d'Afrique beach soccer bi jeex léegi final bi nag tey jii la woon doon dox ci diggante Sénégal ak Égypte laata ñuy ñëw ak yéen ci yaatal gi nag ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abonné ko nga abonné bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugal rek di nga bokk yaatal gi coupe d'Afrique boobee nag jeex na équipe nationale bu Sénégal moo gàddu ndam li waaye match ba tàngoon na jër Sénégal nag moo njëkk a mëni ca match boobee waaye waa Égypte dañoo égaliser remonté ko def ak Sénégal 2-1 waaye ca cëppaandaw ga goney Mamadou Diallo yi dañoo jëli waa Égypte match ba jeexee 2-2 ba ñu demee nag ba ca tir au but la leer Sénégal am ndam dugal juróom benn bit waa Égypte dugal juróom loolu moo tax nag Sénégal jël na coupe d'Afrique bit sa kër bi bii nag moo doon onzième édition maanaam fukk ak benneelu yoon ñu koy amal Sénégal jël na ko juróom ñaari yoon waaye ñeenti yoon yu mujj yëpp équipe nationale bu Sénégal dañu ko tegle kon ñoo ngi leen di jaaramaal Égypte nag Sénégal sonal na ko ci atum deux mille vingt deux bii ñu nekk ndax li ko Sénégal xañ bari na lool bu dee ci football bi Sénégal xañ na ko Coupe d'Afrique xañ ko Coupe du Monde laata ñuy dem ci Coupe d'Afrique beach soccer bi tese woon nañu ci tournoi Kosofa mu soxal beach soccer Sénégal gagné Égypte tey jii ñu gagné waat ko ci final Coupe d'Afrique beach soccer kon Sénégal sonal na lool Égypte ci atum deux mille vingt deux gii ñu nekk match boobee nag ba mu jeexee. doomu Sénégal yi ràññeeku nañu ca ràññeeku nañu tamit ci tournoi bi ndax góolu Sénégal bi di Alseni Ndiaye moom la ñu tànn mu doon góol bi gën a xarañ ca Coupe d'Afrique boobee footballkat yi tamit kañu tànn ne moo gën a xarañ moo di Seydina mandion lay Diagne moom la ñu tànn ne bi gën a xarañ ca Coupe d'Afrique bi ca kër boobee troisième place bi maanaam ñetteelu place bi tamit waa Maroc ñoo ko jël Maroc nag kaleen di tàggat Sénégal la Umar Ngalla Sylla la tudd moom ak jël troisième place bi xam ngeen ne Sénégal moo jël coupe bi kon moo jël première place bi Égypte topp ci Maroc topp ci Maroc nag li ko ko may moo di Mozambique mi daloo yëf yi la doon jàkkaar lool ci troisième place boobee li leen ko may moo di ndam li ñu am ci kaw Mozambique 6-4 la ko door kon Maroc ànd ak Omar Ngalla Sylla ñu jël troisième place bi sunu gaynde yi nag def nañu jaloore kon sunu ñibbisee nañu leen teeru teral leen ba noppi njukkal maanaam drapeau réew mi yóbbu nañu ko fu sori mu jëm ci bit sa kër kon nañu leen jaaraamaal njukkal leen te ñaanal leen wér muy gone yi nga xam ne Mamadou Diallo moo leen